tàmm ne ba pare kay waaw de de façon daal ñun daal avec les sociétés de la santé dinañ toog ñu waxtaan ñu xool xam naa sax ñoom ñu ngi ci waaye ñu toog aussi ñu xool ñun en tant que mairie naka lañu ñu a def pour man ci jàpp avec le gouverneur avec le préfet en tout cas daal euh, feebar bi garaaw na te aussi nañ ko xamee noonu nañu moytu nañu moytu nañu moytu nañu moytu. Euh, coronavirus pandémie la boo xamante ne nii. feebar bu grave la laal na àddina bi yëpp te aussi du ay caaxaan du ay caaxaan kon boobu vraiment ñi ngi lancé appel population bi pour ñu def très attention di raxas seeni loxo joxe loxo bi ñu wàññi ko barki démb rek président wax na ci américains yi c'est la puissance économique militaire du monde ils ont fermé leur leur leur porte aux Européens ñu ay jullit lañu nous sommes des musulmans la Kaaba a verrouillé les lieux saints mais nous aussi quand même on doit faire très attention ñun aussi dañoo war a attention joxe loxo yi ñu wàññi ko vraiment daal ñu fexe aussi ba chef religieux yi ñu nekk ci réew mi ak association sportive culturelle ak yu mën a doon vraiment ñu wàññi affaire yi. ba ba ba ba ñu daan feebar bi au moins parce que aussi bakkan amul njëg